Senelec moom moo yor wàllu courant bi te xam ngeen ni courant moom euh, bu amul ci ci ci wall wala gàmmu rek euh, day xaw day doy waar moo ñoom seen taxawaay lu si am solo la te dinañ taxaw taxawaay boobu de euh, dinañ fii di groupe électrogène nañ ko daan defee waaye itam dinañu def dëkk bi hors délestage maanaam ay bis bés avant ak bés après dinañu def dëkk bi hors délestage maanaam courant bi du ñu du ñu boole dëkk bi si dëkk yi ñuy coupé pour délestage waaye nag groupe électoral bi dina ci nekk rek au cas où waaye itam dañu renforcer tension bi dëkk bi maanaam ay tension yi wàcc ak ay courant bi motu loolu dinañ jéem a def ba euh, tension bi doy ndax euh, bisu màggal gi euh, ak bis yi ko jiitu matériel yi fi indi pour brancher pour mu doxal day xaw a day xaw a bëri ba nga xam ni courant bi kon war naa war tension bi war naa war naa doy bu ñu fa nag dem ci wàllu waa élevage. maanaam ñoom ñooy saytu wàllu ndawal yi ñuy lekk euh, euh, ku wax màggal rek wax moom wax ndawal te ndawal gi dafa war a war a set balaa muy nag daf fekk euh, animal bi bi ñuy war a rey moom mel na mu sell maanaam mu wér donc ñoom ñoo koy saytu ñoo ko xam yooyu ñoom nag ñoom dinañ fi ni bépp ndawal bi ñu fi bi ñu fi bi fi lekk ci ci bi nekk bu set bu sell ak bu ñoom donc kenn bañ ci am jafe-jafe donc euh, loolu yaakaar naa lañ fi doon wax ma euh, euh, eaux et forêt waaye eaux et naa leen war a xawoon naa leen fàtte waaye ñoom itam ñoo yore contrôle bi parce que ku wax eaux et wax ay mbiru garab ay mbiru këriñ yi fi war a indi ak yooyu ñoom ñoo koy contrôle ñoo koy saytu waaye ñoom. en général si yoon bii lañ leen di ñaanee que autorisation yi bu amee euh, ñu mën a yombalal nit ñi fi egsi si jàmm ak salaam donc loolu itam ñoom dinañu am taxawaay boobu waaye itam ñoom euh, dañ leen xamee am ay citerne itam ñoom euh, ay citerne seen citerne yi itam dinañu fexe ba mettre à disposition du comité d'organisation nga xam dinañ dolleeku ci citerne yi nga xamante ni hydraulique dina ko bi prépositionné ci ci ci ci ci période période màggal bi